gars yi bi ñu faloo ba léegi dara doxul mais réew mi 2025 la war a tàmbalee neex. 2025. 2025 la réew mi di tàmbalee neex insha rabbu taala man ba ma xoolee mbir yi ak mbir yi na mu taxawee ba ma xamee ne ñii ñooy gañe ba waxoon na ci élection yi ne la ñii ñooy gañe ci laa gis ne 2025 ci la mbir yi tàmbalee dox. 2025 ci la changement tàmbalee bi incha allah bu taala gis naa ak lëndëm crise boo xam ne mi ngi ci euh, ancien régime bi fi nekkoon. gis naa lenn ci seen yàlla xam na ko dana metti ci ñoom lool lépp lu nguuru woon ci nguuru ci jamonoy régime bi fi jàll muy ngiru Macky Sall gi danañ ko naqarlu ci nguur gi fi nekk coono yi métti xat-xat yi métti gis naa ne lenn ci ñoom damay bañ a du tur waaye gis naa ne lenn ci ñoom ñu ngi bëgg a dugg guddi yoo xam ne dana métti ci ñoom lool te duñ ko bëgg kenn fa tabarakallah te lii ma la wax yàggatul lii ma la wax mi ngi nii di agsi léegi ñëpp dana ko gis insha allahu taala di nga xam li ma la wax da nga toogaat fii ne ma ah, tudd ay tournement ñu ngi ci ay jafe-jafe su boobaa da nga xam li ma la wax tabaarakallah jërë ngeen jëf mbokki internet yu 5M TV Sénégal ci topp geeg bàyyi xel gi saa bu nekk comme ni ñu ko baaxoo di defee rek di seeti borom xam-xam yi euh, jëm ji jàpp ngeen mi ngeen mu di Serigne Moustapha Diop borom baax saa koy fekk ci këram di seq ak moom waxtaan euh, ku ne xam ne ne moom saa bu nekk di yëkkati ay kàddu yoo xam ne da koy jëmee ci tolluwaayu rim waa itam di ñu wax loo xam ne du ñëwagul waaye nag saa bu nekk mu doxee tuuti teg ci suñu bët fan yi jàll rek bi ñu fi ñëwee woon laayoon ko ci euh, falum député yi mu di élection yi nga xam ne dëgmaloon nañ ko moo waxoon ñu euh, ci li nga xam ne euh, mooy daal di am ci élection yi waxoon nañu waa Pastef danañu gañe gañe gu yéeme loolu nag gis nañ ko moo tax tey ñu fekkal ko ci euh, ci këram fas yéene seq ak mu waxtaan xam naa dañu guddal dañ koy bàyyi mu nuyoo rek su ko defee ñu duggu ci waxtaan bi laaj ko li nga xam ne jamono ji kon moom la ñu dëgmal ginnaaw bi nga xamee ne waa Pastef daal nañu gañe élection yi sëñ bi ñu ngi lay nuyu. waaleykum salaam wa rahmatullah di nuyu képp koo xam ne yaa ngi seetaan chaîne bi di 5M TV Sénégal di ñaan jàmm ci réew mi di ñaan yàlla wàccee fi jàmm. ginnaaw bi nga nuyoo xam naa kon dañu dugg ci waxtaan bi ku ne xam ne ne actuellement jamono ji temps yi bëriwul dañ laa fekk nga waaj a génn sax. waaye sëriñ bi euh, xam naa balaa ñu fiy jógee nag bëgg nañu nga wax ñu ci li nga xam ne actuellement jamono ji moom la ñu dëgmal euh, mu di ginnaaw ñi nga xam ne ñooy waa Pastef ginnaaw bi ñu jëlee euh, li nga xam ne moo di assemblée nationale am majorité gagné ko kon actuellement jamono ji la ñu dëgmal moo di liggéey liggéey boobu jamono ji kon sëriñ bi dañoo bëgg nga wax ñu kon actuellement naka laay naka lay demee jamono ji comme gagné nañ ko. waaw mm, bi yàlla defee élection yi des une semaine. ñëw nga fi ma wax la na la parti bii di Pastef ñu dem ak seen doole ñoom kese ñooy gañe te daan gañe gañe gu yéeme koo xam ne du mas am te yàlla di saa def ne gañe gi ñu gañe jël majorité bii régime bi fi jaar bëggoon nañ ko mënuñu ko am te gañe la goo xam ne nekkul mm, lu kenn di laam-laamee lu leer ñépp la yàlla saa borom def ndam lu rëy Mm, yoo xam ne may na ko waa Pastef assemblée bi nag mm, ku ne xam ne ne ku fa dugg yaa ngi fa dugg ci doolay ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko ndax moom la yàlla saa borom tabb ki yàlla tabb nag képp ku nangu dogalu yàlla dugg ci biir tabb ga ku ñëw ne ko yow ànd ak yow ku ñëw boot ci ginnaawam mu boot la yóbbaale la ndam lii kat jaaxaluma xaw ma ku mu jaaxal waaye jaaxaluma waaye xamoon naa ne euh, danañ gañ a gu rëy ndax nee woon naa la keroog bi mu fi mujjee ñëw dama ne la woon assemblée bi bu doon ab boola ñu di ko ñam ba mu fees bu ci Ousmane Sonko sukkee nitam bu jugee ab ñiitaat moo ciy des ñiitaat ba nag moom la opposition bi di seddoo te naa na ma ko waxee woon noonu la amee <laughs> yaakaar naa ci ëpp ñoom jël nañ ko macha allah Serigne Moustapha Diop borom baax euh, moom nag euh, comme ni ñu ko waxee sànq ci commencement bi saa nekk dañuy wax loo xam ne dañ ko gisagun waaye nag mun doxee tuuti teg ci suñu bët moo tax tey ñu fekkaat ko ci këram laaj ko li nga xam ne jamono jikkoon euh, moom la ñu dëgmal mu di liggéey bi nga xam ne jamono jikkoon waa Pastef nañu ko sumb ci assemblée nationale Serigne bi kon actuellement jamono ji yi nga xam ne ñu ko yëkkati di wax ne Euh, jamono ji kon ñoom lañ leen sant moo di liggéey ginnaaw bi ñu laajee réew ñu jox nañ ko ñi laaj ci assemblée nationale ñu jox nañ ko euh, ku ci mel ne Anta Babacar Ngom wax ne kon ñoom jamono ji la ñuy sàkku ci ñoom moo dañuy liggéey ci bàyyi wax ji loolu noo koy jàngati sëñ bi. waaw xam nga liggéey moom xaaw day ànd ak wax wax mënta ñàkk ki yàlla def mënta gis dana wax ki yàlla def mënta wax mu luu dana liyaar sax ñu xam ne daa bëgg wax wala la bëgg wax dana ko liyaar asumaan nag ki xam ne daa yor aw làmmiñam pëtut laggut dara jotu ko ñu wóolu ko fal ko faw dana liggéey boole ko ak ay wax ndax su bu du woon ko wax du jot ci réew mi wax a tax mu jot ci réew mi ndax wax a tax ñu xam ko su waxut nag duñ xam fa jëm su waxut duñ xam lam nar su waxut li muy def ak fi mu toll duñ ko xam kon faw muy communiquer ak population bi nga xam ne ñoo ko fal gunge ko faw muy communication ak ñoom manque de communication bu buy am na am ci opposition bi waaye bu mu am ci diggante population bi nga xam ne ñoo ko fal askanu Sénégal bu manque de communication am seen diggante ñoom ñaar waaye nag na tànqamloo l'opposition bi na tànqamloo waxkat yi nga xam ne yàq képp leen ñor na tànqamloo li nga xam ne nanguñu dogalub yàlla ndax ñooñu bu jëlee seen temps jox leen ko ma nga leen may euh, promotion te tamit ma ngay yàq ci temps bi nga xam ne ñun dañ koy yónni yàkkamti ko na focus ci li nga xam ne mooy soxlay doomu aadama yi population bi góor góorgóorlu ci jàppal leen góorgóorlu ci dab seen i bëgg-bëgg te di leen wax fu mu toll di leen wax lim nar di leen wax fi nga xam ne fi la réew mi toll. la ca des nag mooy opposition bi ak seen i wax ak seen i dingat ak seeni i jaxase ak seen i jabalisation mu bàyyee ko ak ñoom te bañ cee ton te bañ cee wax te dànqam lu ci loolu la lay digal ñi nga xam ne mooy Ousmane Sonko te man am naa droit taxaw digal ko am naa droit taxaw wax ne ko li nga war a def ndax ba muy metti ñun ak moom la woon ñoo ko daan jàppale bokk naa ci ñi koy jàppale saayir ak baatin di ko ñaaral guddi ak bëccëg képp ku ma xam wala képp ku ma jege ma joxoñ la ne la kii la yàlla joxoñ ku bëgg dem ànd la ak moom kon tey jii bu bu neexee wala tey jii bu nekkee ci euh, place bu xam ne place bi ñëpp bëgg a toog la am na droit da ci wax koo xam ne nag ba muy taxani di togg da ngaa ko seetaan taxan ko waxoo ko fi mu war a jaar jàppale ko ñaanaloo ko bu toggee bam ñor mu yekk sa yoon bu ci nekk bu ci joxee sant ko bu ci joxut toogal jàpp sa bopp ñun nag ba muy taxan muy metti kenn ñi wut wax la taxaw di wax la ñuy taxaw di ko jàppale ci saahir ak ci baatin ndax du tey yii laa mas a wax yàgg nañ maa dégg may wax yàgg nañ maa dégg ma koy jàppale yàgg nañ maa dégg ma koy ñaanal te falaa laa mas a taxaw tant que ñi ngi taxaw ci jàppale Sénégal yi naa ngi taxaw seen côté man falaa nekk. macha allah sëriñ Moustapha Diop borom baax waaye sëriñ bi euh, ginnaaw ñoom ba ñu euh, jëlee assemblée nationale am ay député yu bëree bëri am majorité. Euh, ban gis-gis nga am ci kanam loo xam ne jamono ji yaa koy euh, gis loo xam ne ñëwagul sëriñ bi. waaw gis-gis bi ma am mooy gis na réew mi dana neex gis-gis bi ma am gis na programme bu leer dana sensé programme bu leer dana tegu insha allahu taala waaye nag gis naa ak lëndëm crise boo xam ne mi ngi ci euh, ancien régime bi fi nekkoon. gis naa lenn ci seeni nit yàlla xam na ko dana metti ci ñoom lool lépp lu nguuru woon. ci nguur ci jamonoy régime bi fi jàll muy nguuru Macky Sall gi danañ ko naqarlu ci nguur gi fi nekk coono yi metti xat-xat metti gis naa ne lenn ci ñoom damay bañ a tudd tur waaye gis naa lenn ci ñoom ñu ngi bëgg a dugg guddi yoo xam ne dana ñoom lool te duñ ko bokk kenn fa maanaam ñi fi nekkoon ay ministre wala euh, ñi nga xam ne tey jii euh, dañu leen joxoñ baaraama tuuma sëriñ bi. waaw xam nga su ma waxee. li ma wax la dafa leer. ndax nee naa damay bañ a tudd tur damay bañ a cité waaye ñi nekkoon ci ancien régime bi dana bëri ñoom ñoo xam ne danañ toll guddi yoo xam ne maanaam dana métti ñoom loolu guddi yi ñu ngi koy dugg nii mi ngi nii may gis waaw danañ toll jamono joo xam ne dana métti si ñoom lool lool te li gën a métti mooy duñ gis wàllu. duñ gis wàllu. waaw loolu gën a nag duñ gis wàllu liggéey maa ko wax li gën a métti duñ gis wàllu duñ gis fu ñuy jooytoo. waaw nekk ci guddi yoo xam nag. xat-xat ba te gisoo kooku jiwat te gisoo wàllu loolu moom yàlla na ci yàlla musal te maa ngi gis lenn ji ancien régime bi fi nekkoon ñuy bëgg a dugg ci guddi yu mel noonu. sëñ bi ay arrestation yi la wala ay lan la xam nga xat-xat lépp da da cee bokk xat-xat moom ah, kin jàpp tëj ko mu ngi ci xat-xat ki dem ba waroon a wér manque de wér. kooku mi ngi ciy xat-xat ki dem ba bëgg a génn réew mi xool yaramam faju mënu ko ma ngi ciy xat-xat ki dem ba nga xam ne waxtu ko neex la daan tibbee daan tibbee ndeyjoor ak càmmoñ dem ba nga xam ne soxlay boppam mënu kaa matale kooku mi ngi ci ay xat-xat waaye nag daa nekk loo xam ne lu askanu Sénégal gépp di xam la te lii ma la wax yàggatut lii ma la wax mi ngi nii taksi léegi ñëpp dana ko gis insha allahu taala di nga xam li ma la wax da nga toogaat fii ne ma euh, tudd ay tournement ñu ngi ci ay jafe-jafe su boobaa da xam li ma la wax tabaarakallah. macha mm-hmm. allah Serigne Moussa Diop borom euh, xam naa du guddal ci actualité beeg tolluwaay réew mi ndax sa temps bariwut waaye euh, jamono ji kon la bëgg moo di maanaam daal mu di réew mu naat ak réew moo xam ne dafay jëm ci kanam. loolu sànq nga wax ne dana dana am sëriñ bi loolu sa gis-gis la nii wala loo xam ne yàlla def la ko wan wala itam da ngaa jàpp ne ñoom euh, ñi fi nekk jug nañ jug goo xam ne lañ wax danañ ko def. xam nga réew mi lenn lal bëgg a xawoon doo gisee bi bi réew mi tàmbalee ñu naan réew mi dafa tàng réew mi dafa metti gars yi bi ñu faloo ba léegi dara doxul mais réew mi cinq la war a tàmbalee neex. 2025. 2025. la réew mi di tàmbalee neex insha rabbu taala man ba ma xoolee mbir yi ak mbir yi na mu taxawee ba ma xamee ne ñii ñooy gañe ba waxoon na ci élection yi ne la ñii ñooy gañe ci laa gis ne mille 2025 ci la mbir yi tàmbalee dox cinq ci la changement tàmbalee am insha rabbu taala nan dal la te xam ne lépp dana baax insha rabbu taala nan dal te xam ne lu waay jafe woon daal yom bu neexee suñu borom sama temps la lii la ko wax xam na ko dañuy ñëwee du ñëw kenn insha rabbu taala sëñ bi xam naa sa temps bariwut waaye balaa ñu fi jege bëgg nañ nga baaxee ñu ci wàllum ñaan bi nga xam ne yaa ngi koy baaxee askan wi eh, di ci jëriñ ay nit sëriñ bi nga dikkal ñu ci ak jamono ji ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan képp ku ci tuwaal wàllum ñaan rek eh, mën laa woo téléphone sëriñ bi wàllum seet ji ku bëgg ak noo koy defee sëriñ bi waaw seet moom li ma la ci waxoon la ñaan bu dee ab dëkk eh, ñaan yàlla bu dee dëkk seet mooy li saxaar mooy li nga xam ne mooy bunt ba yàlla dana waatul bu yoota Euh, bunt yi faaw bala nga dugg ci néeg ci bunt ngay jaar mënoo topp frontière kon nag képp koo xam ne mi ngi ñëw ci yow bala ngaa xam ci moom leen faaw nga xam ay soxlaam faaw nga xam la ko gàllankoor faaw nga xam la gaar mën a taxaw ci ay yitteem ñun nag yàlla def na ne képp ku ñëw ci ñun ak soxla soo mën a am buñ la xoolalee ci kàttanu suñu ba borom subhaanahu wa la li nga bëgg donc am soxla dina sedd te da ne sëñ bii de wax na ma loo xam ne mosuma kaa xam ci sama bopp wax na ma loo xam ne mosuma kaa dégg seet moom képp kuñ ci dégganteel bala la ñuy soxla nga jox ñu ko mooy tur yenn soxla nga jox ñu ko yàlla xam na ko dana la wax lu leer ci sa bopp lu la lëntoon ci sa kanam ak lu la jaaxal ci sa ginnaaw insha rabbu taala masha allah sëriñ Moussa Diop borom baax mun nag comme ni ñu ko waxee sànq rek nekk na koo xam ne saa bu nekk dañuy wax loo xam ne duñ ko du ñëwagul waaye dañ koy gis après kon mbokk yi xam naa kon dañ koy bàyyi mu tàggoo parce que jamono ji temps bi bariwul ñu bàyyi ko kàddu mu jëm mu àggoo ak yéen. xanaa di ñaanal di ñaanal wi jàmm di ñaan yàlla saa borom subhaana wa taala gën ñoo dolli jàmm jàmm am na fi waaye dañuy ñaan mu gën a dolleeku te di xam ne. ubbil naa samay porte ñëpp képp koo xam ne rek doomu ak koo mën a doon li ñu tax a toog mooy jaamu yàlla ci jaamam wi jaamu yàlla ci jaamam wi moo ñu tax a jug képp ko xam ne ñëw nga ak soxla soo mën a am ak ay joo mën a am ci kàttanu yàlla boo ñëwee li nga bëgg danga ko am te doo ci am benn jafe-jafe ñun saa nafin bi laa dara ran njariñ lan te amuñu lor njariñ doomu aadama moo ñu tax a jug fa tabaarakallaahu kon noonu la ñuy ñaanalee doomu aadama yépp jàmm buñ sañoon ñëpp am jàmm te yàlla na ñëpp am jàmm yàlla na yàlla defar euh, mbir yi saahir ak baatin defar réew mi gannaaw ba nga xamee ne teg na ko ci euh, loxo yu wóor yàlla na yàlla dimbali musal leen ci lépp luy gàllankoor ba nu jëmee réew mi fan ko bëgg a jëmee bi yum ni laa ilaha illallah bi jaahi sayyidil wujud bi barakati alquranu karim barke cheikh ahmadou bamba xaadim rasul wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil masala Serigne Moussa Diop borom baax mu nekk nag koo xam ne saa mu nekk dañuy séex ak moom waxtaan dégg ngeen kàddu yi nga yëkkati na ko waaye nag képp comme yëkkati yittewoo nga ko rek mën woote ci numéro yi nga xam ne mi ngi affiché noonu ci barre d'écran bi boo ko mën nga koo jot boo ko jotul nag xamal ne xëy na yittee tax ndax dañ ko jamono ji mu nekk ci ay yitte war a génn waaye mu may ñu taam tuuti waxtaan ak ñun ci li nga xam ne jamono ji mooy tolluwaay réew mi xam naa kon mbokk yi jox leen dig daje beneen incha allah ci seen bi ànd ak moom jaa ngeen jëf ci topp bi